absolue à tous les états et à tous les degrés de procédure mooy donc dañu war a jox matukaay yëpp avocat yi nga xam ne ñooy layool ki ñu topp xeetu ñaawteef bu toll noonu pour ñu mën a jël seen matukaay. li nga koy layool lan la. pour xam loola il faut nga jot lépp lu bokk ci dossier bi nga càmbar ko gëstu ko. laaj ko chambre criminelle bi bañ ne moom du ko dàq ek daf koy atte tey ñu jàpp ne kon suñu sañ-sañ. suñu àq suñu yelleef ak bu suñu cliente mu di Ndeye Khady Ndiaye ci mun pour ñu mun ko layool layoo bu mucc ayib tribunal bi muy chambre criminelle bi daf ko salfaañe ñun nag ay avocat lañ bu chambre criminelle salfaañe li yoon maye ñun avocat du ñu toog foofa di ko dëggal kon avocat yi ñu toog ñun avocat Ndeye Khady Ndiaye waxtaan ñu ne ñun ñu nekk ci layoo boo xam ne suñu àq ak suñu yelleef ak bu suñu client muy Ndeye Khady dañ ko salfaañe dañ ko nappaje kooku mënuñ ca taxaw di am luñ cay wax kon ñu bokk juboo ne dañuy génn ci layoo boobu parce que layoo boo xam ne kenn joxuñu suñ sañ-sañ ñun dañ ciy génn ñoo génn ñun ñëpp maintenant dañ koy layoo sans avocat mais loolu aussi c'est illégal parce que en matière criminel am avocat c'est obligatoire kon même ñun bu ñu déggoo biir ne du ñu mën a layoo parce que joxoñ ñu temps bi war may ñu ñu gis dossier bi may ñu ñu càmbar ko may ñu gëstu ko aussi chambre criminelle bi dafa waroon a jël beneen avocat désigné ko parce que kenn warul atte kenn en matière criminelle sans moom avocat kon chambre criminelle bi lii muy def nii sax tegul ci yoon dafa jalgati yoon. mais est-ce que am na sañ-sañ bañ beneen avocat bi moo ko koy euh, ci bu ko neexee bu ko neexee mais tribunal bi yëguñ benn yoon. fu ñu jëlee beneen avocat tànnal ko ko mais ci yoon dañ ko war a tànnal beneen avoca parce que en matière criminelle c'est obligatoire mais client bi am na sañ-sañu moom ne man diwoo ma gënal këlee ma gënal mais yeggaguñ foofu te yegguñ koy itam. donc fi mu ne ban décision ngeen jël mais décision bi ñu jël mooy ñu duggaat ci salle bi ñun ay avocat la suñu ak ak yelleef yi gën ndaw mu di droit de la défense bu suñu bos pour suñu client pour ñu mën ko taxaw pour ñu mën ka teewal nu mu gën a rafete nu mu gën a ñoŋe ñu tere ñu ko mais ñun avocat lu ñuy defati ca booba saal. kon suñu warugar dañoo génn bàyyi leen saal ba. am nañu info comme quoi am na beneen avocat bu wax Ndeye Khady Ndiaye ci biir ko ñun amul. amul ba bi ñuy génn amul. mais bu amee na ko bañ. ni ni yéen la taamu. bon xamuma parce que moom moo fa nekk ca biir. moom moom moom am na sañ-sañam peut-être pour wax ca loola. mais waaw moom moom boppam moom mooy toog moom moom su ko neexee mu bañ. af yaa moom sa bopp boo demee tribunal am nga sañ-sañu ne man kii duma ma layol may ut su ki may layol su la neexee aussi nga nangu ko loolu ci moom la dépend. Ah, maître Khouraychi Ba yow tamit nga bokk ci avocat yi daal Ndeye Khady Ndiaye ñu ngi ak maître Khouraychi Ba euh, su ko defee moom tamit comme daal di daal voilà d'accord maître maître ñu ngi ñu ngi ñu ngi lay nuyu mën En français. Je suis maître Massokhna Kane, avocat de monsieur Ousmane Sonko, dans le collectif d'avocats. Nous sommes une trentaine ou plus, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont consultés aujourd'hui également. Là, en matière criminelle, en matière criminelle, personne personne ne doit être jugée sans assistance d'un avocat. C'est ce que la loi prévoit. Pour ce qui concerne notre client, il n'a jamais reçu de convocation pour se présenter devant cette juridiction. C'est très clair parce que il y a un officier de police à Ziguinchor qui a qui a établi un procès verbal pour dire qu'il a trouvé Ousmane Sonko devant sa maison pour lui signifier qu'il était convoqué devant la chambre criminelle. Et cela date du 11 mai. Du 11 mai. Il a daté son document du 11 mai, alors que c'est le commissaire Adramé Sarr de Dakar qui, le 15 mai, a constaté dans son procès verbal qu'il était allé au domicile de Ousmane Sonko et ne l'a pas trouvé et que il a dû faire recours à l'assistance du commissaire de Ziguinchor puisqu'il avait appris que M. Sonko était à Ziguinchor. Donc le 15 mai, le commissaire Adramé dit j'ai cherché Ousmane Sonko à son domicile à Keur Gorgui, cité Keur Gorgui, mm -hmm. je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai fait appel à mon collègue qui est à Ziguinchor pour lui servir la signification. Et ce commissaire l'a dit, moi j'ai vu Ousmane Sonko il y a quatre jours. Or, c'est le 15 qu'on l'a requis. Il antidate son document en disant que c'est le 11 qu'il a vu M. Ousmane Sonko, ce qui est manifestement faux. Voilà comment ça s'est passé, mais Ousmane Sonko n'a jamais reçu de convocation pour venir à l'audience. Et ça, c'est très clair. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, les avocats sont intervenus pour dire que antidate son document en disant que c'est le 11 qu'il a vu M. Ousmane Sonko, ce qui est manifestement faux. Donc, voilà comment ça s'est passé, mais n'a jamais reçu de convocation pour venir à l'audience. Et ça, c'est très clair. Aujourd'hui, les avocats sont intervenus pour dire qu'il y avait cet élément, il y avait cette irrégularité d'abord, y avait le fait que euh, il y avait des n'a pas, pas pu venir, même s'il voulait venir. Mais il n'exclut pas régulièrement convoqué. Euh, si on a garanti sa sécurité. Voilà, voilà la, la situation. Évidemment, les avocats ont présenté ces excuses-là, ont expliqué ces motifs. Donc là, c'est très clair. Mm. cette attente et retenir l'affaire. D'accord. Et retenir l'affaire. Donc en violation de toutes ces règles. Ici est ajouté que Ndeye Khady elle-même, il y a eu des avocats, comme ils vous l'ont expliqué, qui se sont constitués. Et donc tout devait concourir à ce que cette affaire soit renvoyée. Parce que le code de procédure pénale dit qu'il faut au moins trois renvois. Hmm. où est l'urgence? faire à la première audience, parce que le 16, c'était difficile. Parce que quand les avocats ont voulu de renvoi, pour prendre connaissance du dossier, pas euh, sur aucun motif, c'est un renvoi d'office. aujourd'hui les avocats ont demandé le renvoi pour prendre connaissance du dossier. Comment peut-on, même en matière correctionnelle, à plus forte raison en matière criminelle, comment peut-on demander à des avocats de défendre quelqu'un qui est accusé sans que l'avocat soit mis dans des dispositions qu'il faut pour défendre son client, c'est-à-dire mettre le, le, dossier à sa disposition. Ça, c'est impossible. Ça, un, même en rêve, un tribunal ne devait penser à cela. Refuser le renvoi à un avocat qui vient de se constituer pour qu'il puisse rien sur la Ça, c'est violer non, les droits de l'avocat, mais les droits de son client également, qu'on a voulu juger dans la précipitation. Résultat,